ila alhaqi zakki walmurali wa xili wa fi ibrahima al ansari gisaaka yaa xilu ibrahima mawlaaka xayral jasaam na dari kawlaaka fahlan bi am naka indi suuri leen abadan wa zakkiruka fi dunya rak faduma la sidqi wal ixlaasi mujtahidan fi xëjatan barkeb sëñ tuwaag lu mu jurëg lu mu gërëm barkeb saray ma saax barkeb seex sëriñ saax asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi kii wax Ibrahima Mbaye Diop la tudd jasaaka di taalibe seex sëriñ saax di sëtub soxna Fadlaam yeesal Bamba dëkk Tuubaa Daaru Minam dëkk ci dëkk bi doomi dëkk bi di taalibu dëkk bi di santaat yàlla nag ndax ñu ngi taxaw ci masjid di Seexal Xadim yàlla na yàlla di guddal fanum Seex moom du Muntaxa ak mboolem njaboot Sëñ Tuubaa yëpp waaye ñu ngi taxaw nag ak waa Muqaddimatul Xidma mi nga xam ni ñoom la yàlla dénk jumaa ji nga xam ni lépp luy jumaa ji noo ko fi def kon nag ànd na ma ak boo xamee ni Mouhamad Mouhamad bi nga xam ne Safi Diallo moo ko fi indi moo ko fi indi tey ngir bëgg liggéeyal yàlla ci néegub Sëñ Tuubaa bi waaye dafa am sabab sabab ba mooy ci mën la joge ndax maa dem Masaalikul Jinaan fekk ko fa muy net waaye Masaalikul Jinaan ma xool ko mu wéet lool ca la muy liggéey waaye doon def wacc li ci lay ngir yàlla di ko def di ko def di ko def ma di ko xool di ko suivre di ko suivre ba takku san jot ma séen ko ni ko a sëñ bi yow ana kilifa gi benn jigéen dama kee mooy ke ma ko nootu mun Mouhamed Safi Diallo ma ne ko lii nga liggéey mu ne ko dama mu ma dama ko def ngir yàlla ndax liggéey bi liggéey ci lii am naa matériel bi am na xam-xam bi am naa matériel bi waaye bu dee néegub yàlla moom dama koy def li wëcc ci laay yi ma ne ko kon lii de sëñ Tuubaa lañ ko gën a soxlaa sa jumaa ja mu ne man nga maa yóbbu Tuubaa ma ne ko naa la yóbbu Tuubaa jëbbale moo xadimaatul xidma nga liggéeyal sëñ Tuubaa sa jumaa ja loolu mooy sababu bu ñëw bii ba mu ñëw wax ko sëñ Afe mu boole maa njaboot gi sëñ Fallou ak ñoom ñëpp ñu taxaw ba liggéey ba nag ci waaw ba teral nañ leen fi dimanche bi ñu fi ñëwee teraanga bu yaatu wëlbatiku ma dellu waat Ndakaaru xool bagage ca xool matériel ba mu ma léppam ndax lii moon di du asakay lam fa bàyyi ndax mën naa du dix conteneurs si bagage andi ko fii ci liggéeyal yàlla waaye nag day liggéey si jumaa yi liggéey yàlla kon nag Mouhamed Safi ngi nii waa ñu ngi lay dalal jàmm nag ci turu nag waa Muxaddamatul Xidma nga bisimilah. asalaamaaleykum mbooloo bi di julli si bi sant yàlla di gërëm mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo dalal tey di am mbégte ñëw fii tey si bërëbu sedd tedd bi ñëw pour def bio nettoyage donc bio nettoyage si tënk mooy da ngay bu pare après nga désinfecté mais xam-xam bu xóot la comme ñëw ñëw ñu ni euh, du ñu am jot bu bëri pour expliquer lan mooy bio nettoyage xóotal ko mais xam-xam bu yaatu la mais si tënk bépp xeetu jàngoro boo xam ne moom bët mënu ko gis léegi bio nettoyage loolu moo ko tax a jóg donc si bépp bërëb muy hôpitaux yi muy euh, kër yi muy euh, hôtel yi di bërëb yu sell yi donc fépp foo xam ne mbooloo fa am te euh, feebar dina fa law donc bio nettoyage loolu moo ko tax a jóg donc comme gisoon nañ mbënn bi am na fii Touba ñu ne ah lii de devoir la suñu tey wargal la pour ñu dew ñëw Touba indi suñu contribution pour désinfecter léegi jumaa bi nettoyer ko en profondeur ba pare désinfecter ko àndax waa Muxaddamatul Xidma donc si kaw loolu balaa loolu ñëwoon nañu ziar si kilifa yi ñoom ñu accordé loolu ñu leen gërëm di leen sant si loolu. donc tey dañ ñëw di nettoyer comme ni ñu ko waxee rek incha allah en bio nettoyage di invité sénégalais yëpp di mu nekk programme boo xam ne centre de formation la. di jàngale ni ñuy defee bio nettoyage am na fii xam am nañu xam-xam bi mais Europe la gën a développé moo tax ñu ñibbi si indi matériel bi war ak xam-xam bi war am yéene former jeunesse bi. entre deux cent ba mille emplois muy Touba di Tiwaawoon partout ñu former ñëpp donc ñu am xam-xam bi am jumtuwaay yi war bu ko defee ñu mën a aaru daal comme coronavirus amel noonu yooyu daal ñooy tax euh, xam-xam boobu loolu la moo ko tax a jóg donc euh, di leen sant di leen gërëm daal incha allah léegi-léegi dinañ dugg si biir bërëb bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teewu ñëpp. yu nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jógee ba sow muy waa bio nettoyage ci njiitul sëñ Mouhamed mi teew ñëw ci barab bu tedd bii di jumaay Touba kon ñi ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci turu daayir muxaddamatul xidma ci turu sëriñ Afiya Bousso al imam mi nga xam ne moo nekk ci njiit li ñu teew fi teewal ko fi man maa ngi fi eh, ak sëriñ Abdoulahad Bousso mi nga xam ne mooy njiitu commission culturel ak sëñ Fallou Mbacke mi nga xam ne moo jiite commission organisation ak mboole membre yi nga xam ne ñi ngi fi su ma ci tuddee ñooñu rek doy na sëkk kon ñooñu ñoo ñëw ngir dalal fi suñu kuréel gu am solo gii di bio nettoyage jóge dakaar di def liggéey boo am solo xam naa sëñ Mouhamed sax tudd na ko lii sax daawuñ ko faral di def dañ daan bàyyi ba nit ki def ab liggéey ba noppi ñu doog a xayma liggéey ba waxtaan ca ak moom waaye gannaaw dañu xaw a naaje tey itam ñu am kóolute am confiance ci ne li ñu wax euh, ne dinañ ko fi def si jéego yuñ jot a def te ñu gis ko loolu dal na xel moo tax ñu ne kon nañ jiital waxtaan wi kon ñu ngi leen dalal bu baax di leen nuyu di leen jaajëfal ci lii nga xam ne muy liggéey bu am solo jëm ci wàllu set ak setal ngeen jëmee ko ci barab bu tedd bii di barabub lislaam di barabub Cheikhul Khadim ndax lislaam ku ko xam-xam ne diiney ceet la rawatina jàkka yonent bi salaay salaam daana moytuloo sax ñuy dugg ci jàkka te du ñu ànd ak set moo waral ku ci nekk bala ngaa ñëw ci jàkka ñoo la na nga na xusu zinatakum inda kulli masjidin loolu alxuraan moo ko wax kon bu ngeen ñëwee fii loolu tawfiix lay doon ngeen fekk fi mu muxaddamatul xidma boo xam ne mun naa la fanweeri at fanweeri at mi ngi ci liggéey bii ndax 1994 lañ ko tàmbali on mille en 2024 kon ça fait 30 ans ñu ngi ci liggéey boobu bu am solo bii nga xam ne moom la ñuy def fekk fi kuréel goo xam ne itam ci biir kuréelu Muxaddamatul Xidma lii ñi ngi ci woon di ko def amoon nañ ay jumtukaay waaye nag gannaaw yàlla dafa dogal muy liggéey boo xam ne képp ku am yéene di ci liggéeyal yàlla euh, boo ñëwee dañ la yaatal ubbil la suñuy bunt moo tax bi ñu bi ngeen defee contact bi jaare ko ci sëriñ bi wax ne da ngeen fii ñëw pour jàppalante ñun ci liggéey bi loola du ñu leen ko bañal dañuy ñëw rek ànd ko ak yéen comme niñ ko baaxoo defee kon ñu ngi leen ci dalal jàmm bu baax di leen di leen ja jaajëfal muy liggéey bu am solo boo xam ne euh, rawat am am solo gi euh, jéggi na dayo ndax wax na ko léegi jëlale naa setal gi waaye désinfecté bi rek dafa am solo ndax xam nga jàkk jumaa joo xam ne lu mat ay junniy junni nit dañu fiy ñëw te ak ni feebar yi gaaw a lawee wax nañ ko ci Covid bi mm-hmm. lu mel ni defoon nañ ko taxawaay yu mel ni defoon nañ ko ci Covid bi mm-hmm. ba nga xam ne jumaay Touba exemple la woon mm-hmm. waxuma la ci Sénégal rek mais ci àdduna bi yëpp exemple la woon boo xamante ni ba léegi euh, euh, man mën naa wax ne communauté internationale sax dañ ko dañ ko dañ ko saluer taxawaay bi mu ci am te loolu ba léegi jógu fi ndax ba léegi mbooloo maa ngi ñëw màggal yi gàmm yi événement yu bari yi ba ci at ajjuma yi ay mbooloo yu baree bare ay junni junni yi dañ fi ñëw kon foofa war naa am cet gamu làmbool war naa am ci waajtaay ci wàllu cet ci wàllu euh, prévention loo xam ne tey kenn du fi jëlee loraange nit ñi dañu julli ba dem te duñu am benn jafe-jafe kon lii bu ñëwee tawféex lay doon beneen beneen li ci ko mooy li nga xam ne annoncé na ko mooy wax ne euh, transfert de compétence lay doon mm-hmm. wala partage part dañuy partagé dañuy partagé suñu seen i seen i expérience mm-hmm. ndax bu ñu ñëwee am nañ kuréel gu doon taxawee loolu mm-hmm. ñoom itam bu ñu indee li ñu indi dollil leen ko ci wàllu xam-xam mm-hmm. ñoom bu ñu demee ñoo ñu dañ ko mën di waaye nag teewut itam ni mu ko waxee dal na xel mooy saa yu leen soxlawaatee danañu ñëwaat def liggéey boobu kon daal ci turu Serigne Afia ak turu daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi leen di dalal jàmm di leen jaajëfal ci ñëw gi ak euh, xalaat gi ngeen xalaat ne yéen a ngi koy def fu bari xëy na société privée boo xam ne xëy na beneen feneen fu mu koy def fu dul ci jàkka mhm. loola daf cee laaj dara mhm. waaye gannaaw xam ne ne fii néegub yàlla la mhm. te itam bëgg na dugal ci barkeelam comme ni mu ko waxee moo tax ñu ubbil ko bunt yi kon ñu ngi leen di wax dal leen jàmm euh, liggéey bi itam li ngeen ci bëgg yaa ngi na ngeen ci am lu kawe njortu incha allah danañ ko ànd ak yéen ci turu Sëñ Afiya daal ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm baal ma sëñ bi la ma ci dolli mooy ñoom ñi di weeru koor di tàmbalee benn fan weeru koor ba fan weeru fan quatre mille personnes ñoom ñu ñoo leen ndawul fii yëpp wër jumaa ji ba ci biir jumaa ji 4000 personnes yoo xam ne ñoom ñi ba 5000 ñoo lay jox ndogu ñoom mu xaddimaatul xidma ndax ci laa bokk. jërëjëf jërëjëf kon comme xaw na laaj.